mbokk internet di ziar naa leen baa yéen a ngi am jàmm nga ne ko ci cëy cëy yàlla indeeti naa histoire bu doyati waar ndeysaan lii benn femme la femme bi nee na moom bi mu amee 18 ans da daan fréquenté ay xaritam nee na xarit yi nag bam leen daan fréquenté daf leen daan fekk parfois ñu toog ci seen ruq di tux cigarette na bu ñu daan tux moom nag vraiment bu musaana egg si fekk leen ñuy tux danaan leen bàyyi leen tux ndeysaan nee na ma soxna Faatu dama leen daan tere mais ci tere boobu ma leen doon tere n'empêche que chaque jour maa ngi dem di leen fréquenter nee na ma dëkkee noonu ak ñoom mais ñoom nag buñ daan tux dañ daan nëbbatu nee na ma dëkkee noonu dëkkee noonu ba mu yàgg ma mujjee ñu may jox may ñamantu ma ne ko ca eskay nee may ñamantu di ñamantu ba mu yàgg man ci boppam ma commencé di jënd di tux ma ne ko chëtëtëtët yu ni mel seytaane ak a cee gaaw a laxasu mais nag yàlla baax na nee na bi mu commencé di ñamantu ba mu yàgg muy jëndal boppam di tux nee na mu continuer ko nag commencé nag nekk vrai tuxkat nee na dëkkee noonu dëkkee noonu dëkkee noonu nee na ba yàlla may ko boroom kër nee na bi mu amee boroom kër macha allah yàlla may na ko ci njaboot mais nee na n'empêche yàlla may na ko ci njaboot da doon nëbbatu aussi di tux ndeysaan nee na bi mu sëyee moom ak boroom këram yépp dañ doon tox mais nee na dafa kontine moom di nëbbatu moom nag day nëbbatu di tux ndeysaan nee na doonte fekk na nag boroom këram di tux aussi ñoom ñaar ñu ànd di tux mais moom moom wax dëgg fa yàlla bosam da ko doon nëbb di nëbbatu di tux nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba ay jamono nee na boroom këram ci boppam daal di jékki moom xëy rekk daldi bàyyi cigarette ndeysaan nee na ma waaye soxna faatu man bàyyiwu ma man mënuma fexe fexe ba bàyyi donte bi bi bàyyee bëggoon naa bàyyi mais man mënuma fexe ba bàyyi ndeysaan ma ne ko cëy yàlla mu ne léegi ma daldi di nag di jóg ci sama bopp nee na fu nekk ñaan lu naa fa foo xalaat ne rek nee nañ ma fii boo fi demee day def ay ñaan wala fu ma dégg ne ñaan dafay am rekk ndax dama doon nëbbu tux bi may tux nee na ñaan lu naa fa ndeysaan nee na lenn rekk moo nekk sama programme su ma xëyee damay sangu ba set daldi solu ba jeeg daldi toog ndeysaan nee na su ma toogee nag minit bu ne damay dugg ci néeg bi daldi tëju nee na su ma tëjoo daa tux ba doyal daa génnaat ma ne ko cëy yàlla loolu metti na de fu ma dem nee na xalaatumaa dem fenn xalaatuma ko ndax nee na fu ma dem rekk duma fa mën a toog ndax affaire bi dafa ma jàpp jàpp jàpp ba nga xam ni sama xel ci tux rekk lay nekk ndeysaan ma ne ko cëy yàlla metti na de nee na damay nëbbatu di tux di nëbbatu di tux ndeysaan ba tax na mënumaa dem fenn fenn fenn soxna faatu ndax fu ma dem rek affaire bi dafa may jàpp day mel ni rek man faaw ma nekk di tux rek ma doog a am jàmm nee na surtout nag sirtu soxna faatu li ma gën a jaaxal ba jaaxal ma mooy su ma déggee noddu rek noddu fu ma ko déggee damay jóg dem tuxi ndeysaan ma ni ko o oh, cey loolu moom faaw ma ñam ci tuuti kafe ndeysaan metti na de dégg noddu rekk dem tux te noddu moom pour dem julli la ndeysaan li nattu la de yal na ko yàlla teggi ndeysaan nee na ma noddu daal soxna faatu fu ma ko déggee faaw ma dem tux ma ni ko ci cey ndeysaan nee na ma loolu nag lu ma jaaxal la man la fait que su ma déggee noddu rekk sama xel ci tux lay dem ndeysaan ma ne ko ah man mii sax de jaaxal na ma ndeysaan yaay booy tux noddu nga war a dem jàpp julli mais noddu sa xel nekk ci tux lii mooy vrai nattu ndeysaan hmm. yàlla nañu yàlla dolli sutura ci yàlla nee na ma fi may waxee yow soxna Faatu am naa 69 ans ndeysaan 69 ans depuis 18 ans ba 69 ans soxna Faatu ba léegi maa ngi tux ñaan naa def naa lu ne te li ma ci gën a yéem ba yéem ma tux bi noddu lay bañ su ma déggee noddu rek faw ma ne bëreet jóg rek dugg daal tëju daal di tux daal dikkaat ndeysaan ma ne ko ci yàlla yaay booy lii nattu la ndeysaan nee na sama doom yi man xam naa ne am na ñu ci njortu ne maa ngi koy def mais nag mu suñu cee teg seen bët mais nag xam naa ne njortu nañ ko moom man xam naa ne njortu nañ ne man mii damay tux mais nag musuñu cee teg seen bët soxna Faatu ndax nag su may tux damay nëbbatoo nëbbatu bu sëriya ba tux toog a génnaat ndeysaan ma ne ko ay waay lii metti na nee na duma dem fenn xalaatuma ko sax ndax nee na ni may nëbbatoo di tux man mënumaa dem fenn ba yàgg fa xalaatuma nag dem fenn naan maa nga fay fanaan loolu moom xalaatuma ko dem fenn rek naan maa ngi fanaan nee na déedéet xalaatuma ko ndeysaan nee na ndax tux bi tellement que daf ma jàpp sonal ma sonal koo xam ne lu ne def naa ko ñaan lu naa ñii naan ma def def la ñii naan ma rab la ñii naan ma lii la version bu dul bu jinne jot naa ko ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na bu loolu weesoo sama digganteeg sama boroom kër ndeysaan nee na sëy nañu de soxna Faatu ba am njaboot def nañu tamit vingt cinq ans de mariage ndeysaan mu ne ma waaye ëpp na ñaari at man ak moom dara sekkuñu ko et pourtant ba léegi man ak moom ñoo bokku néeg mais dara dara dara dara sekkuñu ko nee ndax nag su man man sama xel du nekk ci sëy ak moom moom tamit xelam du nekk ci sëy ak moom ci sëy ak man nee na ba pare fu ma demaat ci loolu parce que dem naa ci tux bi ñu ne ma rab la dem naa ñu ne ma def def la mais aussi la fait que ak sama jëkkër kenn ci ñun du am envie sa morom te ñoo bokk benn néeg nee na foofu tamit dem naa ci loolu pour ñaanlu mais nee na foofu it bi ma demee ñu ne ma sa digganteek sa borom kër bi aussi rab la nee na ñeneen tamit ne ma def def la nee na ma dama sonn sonn sonn ba nga xam ne vraiment ñii dañ naan ma def def la ñii dañ naan ma rab la léegi tox bi rab lañ ma wax sama digganteeg sama borom kër nga xam ne man ak moom sekkatuñu dara lu dul di xoolante si néeg bi aussi nee ma def def la ñii naan ma rab la nee na suñu wax nag moom bëriwul maak sama borom kër presque duñu wax nee na lenn rek mooy suñu wax man ak moom looy togg toggal lii jëndal lii defal lii nee na loolu kese kese kese la sekk ak jëkkër ji à part loolu leneen leneen moom jëkkër ji sekkuñu ko ndeysaan ma ne ko ah ndeysaan cey metti na de nee nag yàlla baax na nee na parfois xelam moom dina jékki-jékki nekk ci bëgg a sëy ak boroom këram waaye nee na su jéemee jëkkër ji du bëgg jëkkër ji daal da koy won ne bëgguma nee bu ko defee mu bàyyi nee na moom daal li ko jaaxal li ko jaaxal mooy lii moo nekk problème am ñaanlu na ba sonn mais mënul fexe fexe fexe ba solution mu daat ciy am nee na beneen bi ci yokkuwaat aussi parfois day jékki mel ni ku énervé nee na di wax di xuloo nee na lu nekk da ci dugg nee na beneen bi aussi wax bu ndaw wax lu mu ndaw a ndaw ndaw soo ko ko waxee moom histoire la koy seppi ndeysaan nee na wax lu mu tuuti tuuti maanaam boo ko ne woon puusal rek nee na puus boobu dina ko def histoire bu rëy rëy rëy day énervé ci loo xam ne dara moom da jaru ko nee na vraiment loolu tamit lu ko jaaxal la nee na ba pare day continuer di toog di tëju di tux rek di tux rek di tux rek nee na vraiment moom loolu da ko jaaxal minute au minute day tëju di tux di tux di tux ci ku dem ba am 69 ans ndeysaan nee na waxtu julli moom su jotee xel mi du xalaat dara dara dara dara dara dara lu dul jóg dem tuxi ndeysaan ma ne ko ndeysaan ah lii de metti na ndeysaan nee na li ma ci jaaxal nag soxna Faatu mooy fépp fu ma dem version bu nekk lay jot version yi bokkul ñii lii lañ may wax lii lii lañ may wax te ba pare ñoom ñëpp amu ci kenn koo xam ne trouver na ma solution ba ma bàyyi lii di tox maag sama boroom kër lii moo lii lañu sekk ci wax looy togg toggal lii jëndal lii point final bu loolu weesoo man ak moom ñooy bokku nekk mais kenn du xool sa moroom kenn du lijjanti sa moroom version yi bëri na fu ma dem ñu ne ma lii la ba dama am jaaxle ndeysaan nee na beneen bi ci yokk aussi mooy sama mbokk yépp xuloo naa ñoom te xuloo yi may xuloo ñoom booy seet dañ naan mu puusal randul kese kese kese maanaam wax ju amul bopp wax ju amul genn kese loolu laay xuloo ak ñoom duma dem fenn duma seeti kenn wala su ma demee fenn xalaatuma fanaan damay dem def li may def parax parax dem ñibbi nit mënul muusa ko mucc ba ma toog këram ba fanaanal la foofu ndax lan ndax chaque instant damay tëju toog di tux ndeysaan nee na ma joteeg àddina yépp wéet sama wéet man kese may toog ci sama rukk minute minute ma dem tux ndeysaan ma ne ko ay waay lii metti na de nee na nag boo gisee depuis ba ma commencé seetaan nettali laa bëggoon a indi nettali bi émission nettali mais vraiment dama amoon kersa pour indi nettali bi émission nettali nee na nag lan moo taxoon mu amoon kersa ndax nag vraiment tux bi da koo def kersa ba tax na mu rusoon koo indi émission nettali waaye nag nee na à la fin la xam ne jàngoro boo ko partagé wul amul njëriñ ba tax na mu indi tux bi émission nettali pour képp ku ko mën a jàppale ba mu bàyyi tux nga jàppale ko ci ngir yàlla ndax nag sonn na ba fu sonn yem nee na waxtaana la toog kenn foo ko fekk day wéet moom kese mooy toog ci rukkam jàpp njàmburam amul kenn ku muy échangel ndax jëkkër ji lay échangel te lenn rek lay échanger ak moom toggal looy togg toggal li jëndal lii point kon ça veut dire que doomi sax njortu nañ ko ba tax na duñu wax ak moom nee daal wéet na wéetaay goo xam ne am na commencement waaye amul fin nee na yàlla lay wéetalikoo ak émission nettali nee na ginnaaw yàlla daal émission nettali bokk na ci li koy wéttali ndax nag bu toogee euh, gisul kenn ku mu waxal wala mu tëju tux ba pare it émission nettali lay wër xool ban moo dugg mu daal di koy euh, seetaan daal di koy wéttalikoo nee na nag muy sàkku ci ñi nga xam ne xam nañu nan yan garab la ñuy jox nit ba dëddale ko ak tux ndax nag vraiment sonn na sonn goo xam ne am na commencement waaye amul fin ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla yàlla mi ko teg nattu boobu yàlla na ko ko yàlla teggil eh, ci barke Seydina Mohamed ndax nag tux bi dafa yàgg 18 ans ba 69 ans kon ça veut que ba mu dalee tux yàgg na muy sàkku rek lu ne def na ko ñaan lu na def na lu ne mais daal day tëju rek di tux muy sàkku nag ku ko ci mën a jàppale nga jàppale ko ay ca mi ngi noonu di jaajëfal wan bu baax a baax ñu ngi koy ziar nee na ma sa xaal pulaar setul waaye nag maa ngi lay ziar bu baax a baax wan di la ñaanal vraiment ci jàppale bi nga jàppale étudiante bi nga xam ne démb moom la ñuy jàllale histoire am ñu ngi la ciy nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di nuyu aussi kii di Aïcha Aïcha nee na ma soxna Faatu damay seetaan nettali bay jaaxaan di daanu léegi nag Aïcha dama bëgg booy seetaanati nettali bay jaaxaan di daanu nga kobos ma mu dimbali la ci daanu bi bu ko defee booy jaaxaan daanu ma àndandoog yow ma daanu parce que nag duma nangu yow kese nga daanu te duma partager ak yow daanu bi léegi bu ko defee booy commencé ti seetaan émission nettali rek danga may envoyé vocal nga ni ma maa ngi seetaan xam naa léegi ma concentré wu ba daanu léegi nag bu ko defee ma it ma concentré wu booy daanu rek nga ne ma yaa ngi waaj a daanu ñu àndandoo ñu daanu Aïcha maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal internet yëpp yi nga xam ne dañuy seetaan ak di commenter ak di waxtaan na ci di joxe seen xalaat ci émission nettali di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu DG Sey Latif Kanasatou la Coréenne moo nekkoon ci caméra bi di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali di sàkku nag mair bi ngeen jàppale ko vraiment sonn na ndax mag mu am 69 ans ba léegi di toox loolu dafa méttee métti ba pare nekk jigéen teg si di sàkku rek képp koo xam ne yàlla may na la xam-xam ci nga mën a dëddale tux rek nga jàppale mair bi nga daal di koy euh, dëddale ak tux ay ca mi ngi noonu mbokk internet di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu DG Sey Latir di leen joxaat dig daje suba incha allah D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info. ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café